waar loolu ne def nañ ko gaa yi waaye nag tôt ou dëgg day njëkk te dëgg day mujj gisuñ ci moom dara bii paa nag yow mii wax ak man dama jàkk yaa ma gën a xam ne Karim Wade day ñëw yow léegi ku ma gis man ware laa wax de ku te doon ba nelaw ba xaaju guddi nga làmb ma ma toog ci wetu Macky Sall neel tey wëri naa Macky Sall pour mu fekk si moom naan Karim laa gëm dama koy dund ci sama xol Karim dana ñëw incha allah ñu ngi koy ñaan yàlla daanu campagne daanu wër réew mi ndax kenn jéppiwu ñu Ablaye Wade foo dem gis lu mu def koy bañ lu Ablaye kuy bañ a gis lu fi Ablaye Wade Karim Wade tax taxaw booy boo dem wàgganu ko ngeen taxaw tey jigéenu département Guédiawaye li ñu tax a jóg tey mooy Karim Meïssa Wade dañuy wane ne tey dañuy ubbil tey Karim Meïssa Wade campagne bi tey jii la ubbi ci fii ci fii ci département bu Guédiawaye di wane ne ñun ñii dañoo bëgg a fal ñëpp ñu ngi ànd toog di xaar Karim may sa Wade am lu ñu metti nag waaye teewul ñun dañuy ànd ak Karim waaye dañ ko bëgg a yóbbu ba pale am na karimis yu fi nekk tey du ñu mas a bàyyi libéral ñu toog wala libéraux yi yëpp toog ñun ñuy dem di xaajali ko ak ñoom ndax tey ñun dañoo xam ne Karim may sa Wade moo aye Karim moo soxla kon ñun dañoo war ci ñun képp ku ànd ak Karim may sa Wade wala àndoon ak Wade ñu fédéré ñëpp ànd ak ñoom ndax tey bu ñu bàyyee Ndiogou mu dem may Karim Meïssa Wade du falu wala buy falu yi du neex bu ñu bàyyee war a Sarr mu dem bu dina falu waaye du neex suñu honorable a Sarr ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko moom mi nga xamante ne moom lañ ci waroon a jiital parce que ndaje mi ndaje jigéen ñi la te war a Sarr moom moo jiite jigéen ñi national da Ablaye Wade dañu ko fi tegal te teggeegu ko fi ñu ñaan waa Géejawaay Ablaye Wade bu ñëwee yal na renouveler waat ko mu jàllaat jiite jigéen ñi